liberté nit ñi li mu def ci wàllu justice. <laughs> cest à ndax li mu def loolu dafa trop vague. non non waaw mais non non yaa ma bëgg a dégg soo ma bëggee tontu tontu ma ndax liberté yi. liberté yi tout court laay wax bala bala ma koy bala ma koy bala ma koy wax benn par benn. dama lay wax liberté en général ma déglu la ndax am na lu mu def ci liberté lu ñu mën a teg loxo ci ñoŋal ko. ah mais bien sûr waaw maa ngi lay déglu. <laughs> xam nga xam nga dafa am loo xam ne jàpp naa ne ñun waa Sénégal euh, war nañ ko weesale suñu bopp war ko suñu réew. Euh, fii euh, liberté nit am am gu nit ñi am liberté moo jiitu falu président Macky Sall am gu nit am liberté moo tax président Macky Sall falu am gu nit ñi am liberté moo tax man mii ma nekk li ma doon am gu nit ñi am liberté moo tax télévision bii am am bu nit ñi am liberté moo tax pluralisme médiatique bi am ci réew mi am bu nit ñi niñ am liberté moo tax ñu mën a falaka folli président la kon googu wet wax dëgg yàlla jàpp naa ci waxati sax wax da nga ma wax ah. lii la def ci ay slogan ma di ko dégg nga wax ma ay promoville wax ma ay PUDC wax ma ay DER dama ne la ci liberté yi lan la ci def. non non c'est-à-dire que xam nga c'est-à-dire yow li nga bëgg wax damaa xamul lu mu. xam nga liberté yi. Mm-hmm. boo ma da nga naan dul baaraam ni ma lii. liberté bu dellu gannaaw la wala li dellu gannaaw ma jox la ma ci xalaat waaye d'une manière générale liberté rek. Sénégal benn liberté de parce que liberté politique yi. liberté religieuse yi liberté de conscience yi amul benn buñ ci fanq amul benn bu ci yokkuwul. d'accord xam nga ku ne gis na bu yàggul ci ci ci télévision bi mhm. ay manifestant jóg. oui bokk ci ay parti politique. oui fare ci kuje politique yi ñu ne leen kenn du ko fi defee. ci jalgati seen yoon. <laughs> waaw loolu yaa ngi bëgg a laal. ay fi nga bëgg a ñëw mooy dama la fay. lu ko jiitu. waaw defe naa ko mu ñëw rek. lu ko jiitu. mooy mooy ci ci ci 19 avril. ñu ne kenn du dugg assemblée national loolu musu fi am ci àddina non du kenn du. non c'est-à-dire mooy kenn du teg tànkam assemblée nationale. barricade dëkk bi. non non non ban dëkk. non acteurs politiques leen def leen ci kaso. non dama bëgg ñu yu yu bokkul. Euh, li nga mujj a wax. man ah. loolu ci laa ci laa bëgg a dellu li nga xam ne euh, dañuy tere ay nit wala parti politique di def ay activité pour ay manifestation muy sitting wala marche ci plateau lu tàmbalee Malick si booba ngay dem euh, euh, kii euh, Cap Manuel ci wàllu yoonu Sénégal ñi mu tëddee bu fekkee arrêté dafa am wala décret suñ ko attaqué wut ci ñaari weer ya topp ci bañ ko so bañ ko bindee day daal nekk lu lu day nekk norme day nekk règle waaye bàyyi ngañ man li ma jàpp mooy ñun bi ñu nekkee ci opposition bi te Ousmane Ngom génne arrêté boobu ñun dañ ko doon ñaawlu parce que dafa ñaaw moo tax ma jàpp ne ba nu faloo rek lan war a def muy dindi arrêté bi. parce que ñàkk dindi arrêté bi du tee. yow wax nga ko sax loolu ba ñi nga bokkal parti ñenn ci ñoom xas la ci. loolu a noppi eh, ñu. Ah, nga ni ci sant yàlla. Mhm. ndax ki na koy wax dañoo xamul gis nga ni ki lay xaas xamul la rek kooku aw xasam da koy sant yàlla kon jàpp naa ne am na ci côté boobu moom lu mat a jóg la. d'accord mooy arrêté Ousmane Ngom boobu moom ñu dellowaat ko Ousmane Ngom nam ba nam tollu woon teewul nag bis boo xamante ne naa def ay marche wala si ci biir plateau su neexee préfet mu ne bu leen ko fi defee. Mhm. loolu yoon may na ko. kon kon yaa kon yaa ngi dëggal li ma lay wax fii léegi arrêté Ousmane bi delloo leen ko Ousmane Ngom. waay yéen a ngi yéen a ngi yéen a ngi yéen a ngi yàq ak ak yeleefu nit ñi. mais absolument c'est-à-dire que. voilà loolu laa bëgg a dégg président loolu laa bëgg a dégg. non xam nga nit ki xam nga bay nga ne ku dëkk diggante. maanaam diggante El Malick Sy ak Cap Manuel kenn sañu faa meeting kenn sañu faa tabason kenn sañu faa sitting kenn sañu faa marche ad vitam aeternam jàpp naa ne loolu moom du jàddul ndax lu tax mooy ñu dëkk plateau ay mhm. sénégalais la koñ man ak yow ñëwaa mëdaxum sañ a marché waa centenaire sañ ñu sañ a marché centenaire waras na ko sañ a def ci plateau maintenant su fekkente ne nag autorité administrative bi xool na ba xam ne lor ba muy jur bu ñu marché plateau maanaam baaxul su boobaa mën nga leen duggeen ko fi defee dem leen defe ko feneen. kon mais nag arrêté bi moom jàpp naa ne lu mat a dindi la. lu mat a dindi la ci yemuñu ci ko mais dañ ci boole jël ay policiers ñuy dóor ay lacrymogènes. waaw ah, mais xam nga dégg nga li ma wax bàyyi nga dama ne la lu euh, ab arrêté boo ko jëlee. su fekkee ci ñaari weer ya topp ca nga sos ko kenn attaqué wu ko day daal di nekk yoon aw yoon na ku ko jalgati wax dëgg yàlla yoon sañu dal ci sa kaw liberté politique yi <laughs> yoon moom ku ko jalgati yoon dal ci sa